Oumar Diagne wi des ci kaso bi ndax chambre d'accusation bu cour d'appel bu Dakar daal dinay dàq requête en annulation bi soxal produit euh, wala procédure plutôt bi ñu daal di euh, dugaloon ginnaaw ba ñu ko placé su mandat de dépôt euh, mi ngi ci kaso bi nag weer a ngi nii moom Cheikh Oumar Diagne li nu ko doon toppee moo di diffamation injure publique ci député membre bu groupe parlementaire bi di benn Bokk Yaakaar di maître Djibril War ñu ne ko doon wax ci tàmbali gu euh, xibaar yi élection législative yi ñu jëm soxal fanweeri fan ak benn ci weeru ko sulet atum 2022 am na ay liste yu ci euh, recalé ci parrainage yi bokk na ci coalition gëm sa bopp ànd nawle euh, jàmmi gox yi ak defar sa gox ca noone itam la ki nga xam ne moo di njiitalu ko coalition gëm sa bopp moom amal ci ak jonog way tasul xibaar yi ni ki tey ci ngoon moom Bougane Gueye di ci dut baaraam ak tuuma président Macky Sall ne moom moo nekk ci daay jaay doole googe wax na sax ne euh, déposé ab recours euh, en annulation ak yeneen coalition yi mbir mi soxal ñu teewlu ci euh, Fatlaye Mbaye Diop. demain incha allah danañu jël benn lettre de contestation yóbbu ko au ministère de l' intérieur Antoine Diome yaa ngi may dégg parce que lu ji njaag yow ni mu ne nemm noonu lépp mooma bu ñu déposé lettre bi dem à la direction générale des élections moom it danañ ko jox li ñu ko war jox taxaw nañu et on déterminé lépp lu mu leen jaral ñoom danañu ko jaral voie de recours yëpp danañu ko épuiser et bi ci gën am njariñ mooy CEDEAO parce que CEDEAO dafa ne parrainage baaxul nañu ko dindi maki sàll di woote ne moom mooy président bi exemplaire ci àdduna ba jiite Union africaine moom ci boppam danañ ko bind ne ko sa réew yow ci sa bopp respecté woo li institution sous-régionale yi wax parce que moom Macky Sall moo njëkk a foulé du pied les directives de la CEDEAO mi ngi noonu mu nekkoon kàddu yi njiitalug coalition gëm sa bopp Bougane Gueye euh, ca watam itam Fadel Barro moom nag mi ngi daal di woo euh, chef de l'état muy njiitu réew moom président de la république mu xoolaat bu baax a baax ak doxalinam mag euh, toogaayam ci noonu itam moom ci boppam fas yéene na déposé ab lettre de protestation ci autorités yi nga xam ne ñoo compétente ci lijjante jafe-jafe gi ñu nekk di dund jamono ji Fadel Barro ñu teewlu ko ak Fatou Lay mu ne moom ay élection moom mooy tànn ñan lay dem ak ci ci xare ba lu tax te yéen ñëpp xam ngeen ci cosaan ak ci cosaanu réew mii doo ko fi waxee ak doo ko fi defee mooy yee fitna. nag dañuy tàmbali ci gëm sa bopp ak tàmbali ci jàmm di ko fi samp di ko fi dox ñu ne ñoom duñ bokk ci élection yi ndax lan boo jëlee as tuuti ci kuréel nga ne man làng gi ci ñii laa ko bëgg a yemale tôt ou tard muy tey. muy suba muy ginnaaw ëllëg tôt ou tard fitna rek lay jur. suba rek dinañu dem incha allah déposer suñu lettre de contestation adressé ko ministre de l' intérieur parce que dafa am loo xam ne dafi war a jeex. ñoom ñu tànnal seen bopp ñu war a dem ak ñu war a dem ci assemblée nationale bi pour lan ñu war a tànnal sénégalais yi ci ñan lañu war a tànn ci seen biir. mi ngi noonu mu nokk mi nekkoon euh, Fadel euh, Barro bu ñu sukkandikoo nag ci expert électoral bi di njaga Sylla coalition yooyee ñu daal di recalé ci parrainage bi am na nañu euh, benn fan muy vingt quatre heures ngir déposer seen recours ci conseil constitutionnel moom sax conseil constitutionnel am na ñetti fan ngir tranché ci yooyu léeg dossier Ndiaga silla moo ni xam xamle ñu teewlu ko. maintenant nag dañu la ñi nga xam ne tey dañoo rejeté woon seen parrainage tey xam nga souligné wax nañ leen ko. waaye ba léegi nag acte bi ñu war a jël dëggantaan nga xam ne moom lañu ñu war a mën a ñoom attaquer devant le conseil constitutionnel acte boobu dañ bu ñu démarré donc examen càmbar bu de fond bi maanaam recevabilité juridique bi soixante-quinzième jour ci ñaari fan yu njëkk yi ci lañ leen ko war a jox maanaam notifié ministre bi day da leen wax ni yéen ñi déposé woon euh, seen parrainage euh, wala wala maanaam mu am benn candidat bu inéligible wala am pièce bu manqué loolu ci lañ la koy bindal wax la ko nag en bonne léegi nag yow nga am benn fan nga am Euh, maanaam ci suba ga nga nga war a saisir conseil conseil yoon may ko ñetti fan moom mu mu mu joxe at atem mi ngi noonu Ndeye Demet ban jàngat ngay def saa si tembe ci yenn ci ay coalition yu nu recalé bokk na ci euh, gëm sa bopp ànd nawle jàmmi gox yi ak defar sa gox lépp liy sabab bi mooy parrainage. nga préoccupation yi ñu posé dafa légitime. Mhm. te lépp mi ngi dooree woon. ci jafe-jafe yu ñu nemmeekoon ci parrainage bi mhm. ginnaaw bi ko maître Abdoulaye Tine yóbbee woon CEDEAO CEDEAO jox ko dëgg mhm. donc bu ñu tegew foofu rek parrainage bi dafa jaarul yoon parce que déjà euh, CEDEAO wax na ci lu leer mhm. maintenant la question qu'il faut se poser et chaque jour loolu la ñu posé wu lan moo tax bu dee ay décision CEDEAO soxal yeneen réew yi dañ koy appliquer alors que bu dee fii Sénégal toujours boo interpelle les autorités il te parle de la souveraineté de l'État kon aujourd'hui est-ce que c'est pertinent di kuréel ci international doo ko respecter dama jàpp ni tey logique pour logique l'opposition dans son ensemble waxuma benn parti wala beneen parti mais ñoom ñëpp dañu waroon boycotter élection législative yi bàyyi la président Macky Sall ak àddina ñu ko seetaan mais ñoom opposition aussi wëlante wuñu woon seen biir parce que ñenn ñi ragal nañu boycotter ñeneen ñi dem donc booy xool ñoom dañu doon surveillante seen biir kenn ku nekk lu kii di def ak lu keneen di def lu ñuy par faral yëpp di di dénoncer parrainage bi gis nga leen ñu ngi doon ut ci suuf ay parrainage te loolu man daf ma poser problème donc tey ñoom ñëpp bu ñu boycotté woon euh, élection législative ñoom ñëpp nag muy yeewi askan wi muy wàllu ñoom ñëpp ñu bàyyi président Macky Sall àddina donc c' est vrai que boo boo déggee ñeer ngi di ko wax Abdou mm. mbay waxoon na ko mu am ñu jug tontu ko ni ko politique chaise vide euh, fajul dara mm. mais man jàpp naa ne bu ñoom ñëpp nekkoon benn say euh, xëy na lii am ni tey mm. du am problème bi nga xam ne nag Bougane moo ko waxal boppam acharnement euh, du tey parce que depuis élection présidentielle yi def na euh, ab conférence de presse taxaw ci stade wane ay parrainage am taxaw ànd ak huissier mhm. terewul ñu gis ni amoon na problème dakaar aussi wax na ko tey aussi la même chose mhm. il y a problème yoo xam ne Bougane def na ay erreur ci wàllu politique mhm. donte dañ koy nangul ni moom taxaw na sax ci télévision ci Maïmouna Ndour Faye wax ni moom du politicien professionnel parce que am na tey ñu mu àndal ñu ñëw ut si fa woon dara demaat man jàpp naa ne ñu def ñu fa woon dara donc tey encore une fois bu weesoo recours bi nga xamante ne nii wax na ko te effectivement dañu nekk ci dëkk yoon na ko topp ba mu sës Mhm. mais tey encore une fois parrainage bi dafa nekkul dëgg dafa jaaduwul te tey euh, wax dëgg yàlla euh, am na carte yoo xam ne ni euh, téye nañ leen mais am na yeneen onze yu xaarandi mhm. parce que dix dañ leen déclaré forclos li ci li li li intéressant nag ci élection yi Mohamed mhm. mooy euh, élection yi ñu génn amoon nañ 47 listes mhm. bi yoon ñu gis ni am na cinq déclaration de coalition d'intention mhm. donc bu ñu demee ba ci biir am na ñeneen ñoo xam ne certainement xëy na dina leen éliminer donc on va partir avec 9 listes wala 10 listes te su boobaa carte gi dina encore une fois kenn bañul euh, a am ñu a def parce que sax am na ay propositions yu intéressantes yoo xam ne wax nañu ni parti politique bu demul élection benn wala ñaar yoon dañ la war a dissoudre loolu accepté nañ ko parrainage bi nga xam ne nii CEDEAO daf ci wax donc vraiment euh, ba ñu waxee ne nii baaxu rek lañ ko waroon tekki suuf très bien mi ngi noonu Hadj Mansour jooy nañ ko fu nekk xeetuk euh, parrainage bi ñeen ñi jàpp ne filtre la waaye nag euh, ñenn ñi jàpp ne sax ni ñuy utee parrainage moom la ñu xoolaat moom la ñu war a xoolaat ñoom acteurs politiques yi est-ce que parrainage yi joxe baax na parrainage ci boppam la CEDEAO ni baaxul Mohamed mhm. moom la ni baaxul d'abord ñu continuer mooy ci te nee nañu du dooleel démocratie ñeenti ñu ñu rëkkale ñëpp tey kenn du ci politicien mm. de métier ku nekk am nga ci la leen loo nekk pourquoi ñu cible leen bàyyi ñi nga xam ne politique la ñuy dundee pour ñu mën a jàll te ñu bëgg rupture ak changement ci Sénégal ñetteel bi ci des euh, tuuma yi doon tegu ci kaw Bougane ni xëy na élément wu Macky Sall la xanaa kon li am ni weddi na ko je pense euh, ndax yebewul Sénégalais yi noonu pour liggéeyal Macky Sall ci bluff et au fur et à mesure xam qui travaille pour Macky Sall mais tuuma baaxul as gor boo ko tuumaalee ci diggu pénc bu ne tekki tekk tekki wan ko yoon. Euh, jëmuma nekk avocat am mais dama gëm réalité politique ak sos yi ci nekk. ak war yi ci nekk ak jeu bi ci leerul. dellu si ci ay coalition yu bari yoo xamante ni bii tey boo ko càmbaree bi ci biir da ngay xam ñoom ñëpp ñoo dàq def ay jeu yu tilim ak yu salte te kenn du leen tudd kenn di leen joxoñ gis nga ne bëgg nekk Sénégal di def politique ñu mu leen opposition bi sax nag ci opposition bi sax nag opposition bi xam nañu ci ñuy liggéey pour pour pouvoir bi te ci kanam tuuti <laughs> daa ñu xam pënd dina wuri yuuxu jib fu ñu ko foogewul xëy na nag euh, méthode bi mu jaar moom Bougane xëy na munoon na rate mun na rate ci départ am ci méthode bi mu jaar mais jamono moo koy dindiwaat tuuma yi teg woon yëpp te ñu ngi suñu kanam am na ay coalition yoo xam ne bu ñu demee ba élection yu jeex ba ñu dugg assemblée nationale ba masque yëpp wadd yuuxu dina jib fuñ ko foogewul beneen bi ci des mooy yow mënoo nekk ci am réew te nga ni te nga ni chaque élection man may tànn ñi ma neex pour ñu dem ci élection yi mais loolu du démocratie te loolu mënut a continuer yow sa 17 millions nit ya nga am ñiy bindu ci 6 million la toll ñiy voté 3 millions ak tuuti nga bëgg ko séddale di tànn ñiy dem ak ñi dul dem mais ban dëkk lañ nekk ci wàllu démocratie lu ñu leen lu ñu leen kale ay doublon ak yeneen ak yeneen ci ay yeneen yeneen motif yoo xamante ni bii leeraluñu ko wala euh, da ngay xam ni lii taxawul mais sa waay mënoo wax ni ak ci diaspora bi ñu leen recalé te foofu sax faf amuñu fa woon liste non et ci parrainage ñii ñu kale ñii ñu recalé ñii ñëpp Mohamed mhm. bu ñu la wanee ñoom seeni ay kii kenn ku mu ci doon binduñu ay bindu jox joxalante dentité ci kaw dentité dentité ci kaw dentité dentité ci kaw dentité Eh, gis nga gis nga fi li mu li mu mujj indi. Mhm. parce que ñoom choisir nañ ñuy dem ak léegi mais question bi nag mooy. pour mhm. pourquoi président Macky Sall pourquoi. Euh, dafay xaw a jafe pour. Mhm. défendre Bougane. ndax xëy na mun nga liggéey ci boitam mais est-ce que loolu intéressé na la bu fekkee Sénégal dong moo tax ngay wax parce que bu doon beneen politicien itam noonu laay poser président Macky Sall la question bi. lan moo tax Bougane nekk personne indésirable ci géopolitique bi. élection présidentielle ñu ni ko doo dem. élection locale xaw naa dee laataa muy dem. élection législative ñu ni ko doo dem. mais loolu dafa laaj ay explication am na ay moyen dem am na mbooloo mu ngi def ay tournéem mais lu tax ñu ni ko doo dem foofu la question bi nekk te loolu dafa nekk bataille boo xamante ni bi ñu bañ a xool intérêt personnel bataille presse bi bataille société civile bataille opposition bi parce que mënuñu cibler kenn ni ko doo bokk ci benn élection tamit sénégalais comme tout le monde mi ngi noonu ñu ci leneen